Senghane Senghor maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax. Senghane Senghor euh, nga nekk chargé des affaires juridiques ci RADDHO euh, déjà lancé ngeen il y quelques mois jàmm gën troisième mandat euh, si jamono ji nag dafa mel ni mbir mi si lañ ko daal di gën a soxla lan moo waraloon ngeen lancé ko jàmm gën troisième mandat. waaw madame merci beaucoup pour invitation bi. Euh, xanaa fàttali rek ne am na ñeenti weer léegi ci gannaaw euh, dafa am organisation yoo xam ne bi ñu seetee Sénégal ni muy doxee dañoo daje woon waxtaan ñu ne ah ñun kat jot nañu jóg artu parce que yëf yi fi mu jëm nii buñ ko seetaanee mën na bañ a doon lu ñu neex ci lañ daje woon waxtaan yónnee woon président benn bataaxal pour ne ko ah ñun de jàpp nañ ne jot na nga féddali la nga waxoon rappeler parce que waxoon nga ko ba pare waaye nga firndeelaat ko ne doo nekk candidat deux mille vingt quatre ndax mu mën a libérer Sénégalais yi mu mën a yaatal espace bi ñu mën a jublu ci essentiel bi nga xam ne ci leen jublu deux mille vingt quatre ñu yónnee ko lettre ouverte def ci conférence de presse wax ko ko le 31 janvier bi passé nga xam moo tombé woon ak Fatou du Diop. ak yeneen faatu ak gaañu gaañu yu bëri yu ci toppoon 2011 ñu defaat encore beneen déclaration buñ tuddee woon appel du 31 janvier pour delluwaat ca lañ ko waxoon fàttaliwaat ko ah lii di xew nag ñëpp jóg ci di wax moom lañ séentu woon muy ñëw parce que ñun société civile lañ société civile ñaari tànk lay doxee moom dafay veiller te comme ñun am nañ expérience parce que dañuy liggéey ak réew yu bari di xool li xew ci àdduna bi lu bari léeg-léeg ñun dañuy mën a xam ne lii buñ ko bàyyee mu law lii la mën a jur boo gisee loolu nag boo wéyee ba gis ko obligation bi nga am en tant que société civile mooy nga alerter mooy nga ne ah lii kat nañ ko fànq parce que buñ ko fànqul dafay andi problème suba loolu daal mooy li ñu defoon ba taxoon ñu taxawal jàmm gën troisième mandat. Mhm. ñaar fukki lu mot ñaar fukki organisation ak ay personnalité indépendante ñoom ñoo ko taxawaloon ah mu jublu ci nag jubluwuñ ci xeex jubluwuñ ci xuloo jàmm dong lañ ci bëgg moom lañ ci ut ku bëgg jàmm nag da ngay teel a xëy parce que doo xaar ba yëf yi jolli nga door a jóg ne da ngay ut jàmm moo tax da ngay teel a xëy di wax li koy andi di dox li koy andi te jàpp nañ ne président bu préciser woon lool. dana dana indi jàmm ju bëri ci dëkk bi dana am tension bi lu bëri loo xam ne dana ko ci wàccee. voilà est-ce que gis nga ni tension bi am actuellement ci réew mi c'est possible dialogue am ci diggante opposition bi ak état bi est-ce que pour yow c'est possible en fait. xam nga <coughs> dialogue entre pouvoir ak état xawma un peu ñi koy wax lan lañ ci comprendre li ma xam mooy. dialogue ci bu fekkee institution yaa ngi dox dialogue mu ngi am ci biir institution yi fi nga xam yëpp pouvoir mu nga fa opposition nekk fa et que côté boobu normalement bu doxee warul am problème par contre opposition ak pouvoir lan moo leen tax a jóg pouvoir dafa dem élection ñu dénk ko réew mi mu koy doxal opposition dafa am beneen programme alternatif boo xam moom la bëgg a proposer pour ne dindi leen ñi nekk au pouvoir ñu jox leen seen place donc ñii dañuy fexe toog ñee di liggéey pour remplacer leen ñun pour nga dajale leen ñu waxtaan bi mën a juboo ci yenn yi dana jafe par contre li war a am mooy ki yor pouvoir dafa war a xam ne dañ ko dénk pouvoir bi joxaale ko ay constitution jox ko ay loi ay règlement mooy décret yeeg arrêté yeeg yoo xam ne ci ci ci kanaal boobu ci la war a doxal dëkk bi te di respecter droit yi ñëpp opposition bi aussi am obligation war a xam ne dafa war a respecter loi yi dëkk bi ñu doxalee noonu ba dem élection saa bu ñu demee élection population yi atte léegi nag lan moo andi tension bi tax ñuy wax waxtaan tension bi tax ñuy wax waxtaan ñun jàpp nañ ne war nañ ko mën a régler sans sax ñu boole opposition ak pouvoir ñu toog parce que buñ toogee xaw ma lan la ñuy wax. parce que seen diggante ni mel kii di ut remplacer ki ci des gaw ma ñu mën a waxtaan ba juboo ci yu bari am am na nag loo xam assemblée moom seen ñaari seen représentant ya fa nekk war nañ caa mën a waxtaan foofu ba juboo ci par contre li jàpp li war te loolu mënul ñàkk mooy président de la république na appliqué lu texte dëkk bi te bañ cee farfarloo opposition na respecté loi yi dëkk bi voilà tey jii pour yow euh, Senghane lan mooy solution pour élection yi ñu jëm d' élection présidentielle yi dal di am ci jàmm ak salaam réew mi bañ a tàkk benn yoon ko ñu ko tiitee mu mu am ko waaw parce que élection li tax mu war a li liñ jàpp ne war na mën a indi élection yi jàmm ak salaam mhm. mooy ki nga xam ne warta bokk nga xam wax na ko fu ne senegal dégg ko Afrique dégg ko àdduna bi dégg ko ñi ko jege woon yépp wax ko bind ko fu nekk kooku na respecté la mu dige woon ak nit ñi te bu organiser moom élection yu leer yoo xam ne képp ku bëgg a bokk da ñëw bokk ku sénégalais yi woolu fal la nga ñëw doxal réew mi su ba continuer loolu jàpp nañ ne bokk na ci liy andi jàmm ci réew mi parce que mbiri troisième candidature bi dëgg la du loo rek mooy tàngal dëkk bi mais xam nañ ne am na ci dose boo xam ne bii di troisième candidature bi bokk na ci li koy tàngal ñaareel bi nañu jël sur le plan aussi électoral nañ jël texte yi ñu war a jël doxalee ko ni ñu war a ni ñu ko war a doxalee pour bañ a dox ci droit yi kenn ñu dem sénégalais yi àtte leen loolu daal bu amee ak it beneen fànn bi parce que beneen fànn boobu def ci am solo trop te dañ koy xaw a fàtte mooy justice parce que justice dafay intervenir ci processus électoral bi waaye dafay intervenir ci suñ doxalin bës bu set te nag man sañumaa toog fii wax ne justice amul ci dëkk bi parce que loolu ku ko waxit du doon lu wér waaye nag sañ naa wax ne justice bi am na yuñ ci war a joyanti sañ naa wax ne sénégalais yi tey boo leen laajee seen perception parce que ñun dañuy wax ak ñoom lu bari bari na ci ñoo xam ne gis-gis bi ñu am ci justice mooy dafa jeng jëm ci pouvoir bi te loolu dara wala lu war lu waralu ko lu dul doxalin bi parce que gis nañ fi weer yi yëpp boo xoolee ñi ñu jàpp fi ñu leen jaarale ni mu demee ku waxal yàlla da ngay wax ne dafa mel ni justice bi opposition bi la fi nekk di dàq ak activistes si wala nit yi société civile bi dafa mel ni ñu ñoo ko tax a jóg parce que beneen wàll gi mooy ñi ànd ak ngóor gi bés bu seen ñu dégg ku fi wax wala def fi loo xam ne jaroon na ñu woo déglu la te dara du ci topp loolu it bokkul ci luy doxal réew parce que réew moo gis mu taxaw rek justice ba dafa taxaw defa dëgër loolu moom acteurs yi justice bi war nañ koo dégg ñu liggéey ci te góor góorlu ci te xam ne ñoom dafa am luñ ci war a jouer loo xam ne lu fondamental la bu ñàkkee ci démocratie rek démocratie bi daanu Euh, beneen laaj euh, Senghane Senghor analyse euh, par rapport ak li xew ca Mbacké ci week-end bi vendredi ginnaaw bi ñu interdire meeting bi nga xam ni opposition bi wala Ousmane Sonko bëggoon na ko amal foofule gis nga jàppante yi métti woon na ban jàngat nga am par rapport ak li am Mbacké ci week bi wi. li xew Mbacké man damay jàpp ne bu amee koo xam ne ci. responsabilité am lañ ko war a teg mbaa ñu laaj ko ci ay explication préfet bi la war a nekk parce que madame préfet autorité ci tubaab dañuy wax autorité déconcentrée la ci pouvoir central bi la bokk mais moom moo toogal président foofa Mbàkke waaye moom ak ay service am seen liggéey du liggéeyal pouvoir bi fi nekk liggéeyal Sénégal la et que ñoom dañoo war a comprendre buñ comprendre seen liggéey ñoom war na ñoo xam ne ñoom nekkuñ fii pour rek euh, nga andi ñu valider wala ñu invalider jox la nga dem dafa am domaine yoo xam ne dañ ci war di servir population yi conseil bu opposition bi joxe droit marche joxe droit manifester ñoom war nañoo mën a xam ne am na sénégalais yoo xam mën nañoo xëy ne damaa bëgg a marche te doo xam yoon bi kooku boo ñëwee ci ñoom ñoom war nañ la mën a expliquer ne la yoon bi lii la pour que droit boobu nga mën ko exercer ni ko constitution bi ak texte yi consacré li ma dégg mu wax ne moo tax ñu li ma liir ne moom la wax ne moo tax mu rejeté ñetti nit ñoo waroon déposé waaye ñaan ñoo déposé ñu déposé trois jours avant mënoon na leen woon ne leen lii kat manquement la complété leen ko jàmm ne ñooy parce que nag ku xool li fii xew ci dëkk bi man damay dem ci manifestation yi di xool manifestation yi ñu autoriser andeetuñ problème ci dëkk bi loolu mooy wane ne dëkk bi jeunes yi civilisé nañ man manifestation yi ma dem xale yi bu manifestation bi jeexee d'abord balaa heure bi ñu leen jeex jox jot jot dañuy tasaaroo dañuy for këyit du fa des mbuus du fa des lépp dañ koy nettoyer ñu door a dem police ak gendarmerie duñ wàcc sax seen oto nekk ci seen jàmm ak salaam mais bu ñu ay manifestation mu andi xeex jur ay yàqu-yàqu yoo xam ne dañ ci yàq bien Sénégal yi mais autorités yi ñoo war a un xoolaat seen bopp te loolu nag il faut tam ma wax ne autorités yi dañ cee rawante man interroger naa ñuy ay préfecture yoo xam ne bii local yi passé yële passé dama leen laaj mais yéen lu tax amu leen ay rejet ñu ne mais ñun li am xew feneen moo xewoon ci ñun gaañi bi ñu déposé am na ci ñoo xam seen dossier dafa manqué woon dafa motuloon dafa defoon lii pièce bi baaxuloon mais dañ leen woon leen may leen temps ne leen dem leen ngeen complété ko ñu ne mu parce que ñun administration lañ ñun suñu yoon ci ku ñuy éliminer kuñ dul éliminer élection lañ jëm nañ dem ci kanamu sénégalais yi ñu àtte leen bu ñu demee kuñ fal muy noonu kuñ falut muy noonu man jàpp naa ne loolu mooy posture yi préfet bu baax parce que préfet warul di def luy tàngal dëkk waaye dafa war di def luy seddal dëkk bi loolu moom autorité yi war nañ koo dégg te it ñu bàyyi xel ci lenn l'attitude bi ñu amoon lu ñëw ñu aaye ko parce que période de Covid lañ nekkoon génn nañ période de Covid sénégalais yi droit yi ñu amoon avant Covid dañ ko war a recouvrer dañ ko war a jot di manifester di wax liñ bëgg ak liñ bëggul ci ci cadre yi loi yeeg règlement yi comme nañ ko doon defee avant bu ñu bëggee delloo gannaaw problème rek lay andi te ñun wuñ problème fi mu ne jàmm lañ soxla. Hmm. mais pour jàmm jooju tamit euh, Senghane gisoo ne parfois opposition bi ñoom war nañu reculer tamit dellu gannaaw. waaw de effectivement danañuy reculer parce que man gi yéeg naa fi manif manifestation opposition yoo xam ne fii nii bañ leen aayee dañoo dem toog. ba beneen yoon ñu déposé waat am na ci yoo xam yegg nañ sax ak pouvoir bi ci ne danañ bàyyi mais beneen yoon bu ngeen ñu aayee dañuy marche par force man déggaguma fi marche bu pouvoir bi demande ñu aaye ko sama demande sax est-ce que pouvoir bi danay déposer demande déclaration de marche comme ni ko opposition bi defee ak est-ce que léeg-léeg bu fekkee ne dafa am rëq-rëq yu ci am dinañ ko aaye loolu ci la bokk di parce que impartialité boobu moom moo war autorité administrative yi dana jafe ci contexte Sénégal bi parce que am na lu bari loo xam ne xam nañ ci yëf yi ni muy doxee mais noonu dans l'absolu noonu la war a demee. léegi euh, dernière question peut-être euh, naka nga gisee déclaration bu Antoine Félix jom euh, ministre de l'intérieur bi tontu Ousmane Sonko ci garsa bi garsa bi moom nag jàpp na ni ñoom tamit seen bakkan dinañ ko teg pour la sécurité des personnes et des biens naka ko daal di gisee li Antoine Félix Diome wax. man jàpp naa ne ministre de l' intérieur am na beneen liggéey bu du nekk fi di tontuwante ak opposant boo xam ne yorul dara madame autorité yi nañuy fàttaliku ne suñuy doom lañ yor doomi sénégalais yi ñoom lañ yor même bu fekkee ay policier lañ ñu jox leen def leen ci responsabilité ay doomi Sénégal lañ xaalis biñ ko jox ñu di ko jëndee ay ay oto yuy sotti ndox mu tàng ak leneen ak leneen xaalis yi Sénégal la arme yi ñuy jënd wekk leen ko arme yi Sénégal la xaalis bi ñuy fonctionner pour service yooyu xaalis yi Sénégal la kon moom léppi Sénégal lañ ko jox entre les mains na moytu loolu mu di ko xeexee ci loo xam ne du intére Sénégal kese wala boo mu di ko xeexee ci doole joo xam ne bu laajee fukk ñoom ñu def ci téeméer ñaar yooyu képp ku yor nguur danga ko war a moytu et bu ñu sañoon ñun daal vraiment dina nekk ci ci ci gérer ministère de l'intérieur gestion boo xam ne du dugg ci ay polémique ak ay werante yoo xam ne amul benn njëriñ parce que dafay andi far et autorité du werante ci yenn werante yi man jàpp naa ne dimension am weesu na foofu. kon euh, Senghane Senghor Rewmi FM mi ngi lay jaajëfal. merci Ndeye Comba maa lay sant bu baax di la gërëm. may fàttali ne yow euh, chargé des affaires euh, juridiques ci rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme di RADDHO des droits de l'homme di RADDHO